ñu ngi koy sant bu baax parce que maam moom dañoo jaar fu metti te daf ma daf ma yërëm ba pare aussi daf ma muñal dafa muñal lu bari amaana sax moo tax euh, lii yëpp am tey jii ah, ñu koy sant bu baax franchement parler ana sama nijaay bu Diouf parce que gis nañu maam Ndiaye moment bi ah. sénégalais yëpp di àgg jëmale ci moom tey lan nga fàttali ci maam Ndiaye bon maa ngi koy ñaax mu sama ñaari nijaay yaa nga noonu toog parce que Sénégal dafa mel te nit bu demee bay commencé liggéey franchement parler dañ koy encouragé. nga xamante ni si franchement parler c'est une femme battante moo tax sénégalais dañ ko war a dañ ko war a encouragé bon moo tax à chaque du ma def lu dul di ko jàppale quoi lu dul di ko jàppale wax bon courage machallah eh, xanaa ñu jot a bi waxul dara. xam nga bisu sëñ Fallou la bisu sëñ Fallou moom lépp lépp lépp mun nañ ne. kii na ci quoi comprendre nga. moo tax duñ def lu dul sant rek sant rek waaw. bon coow li li mu bëri bëri bari bëri damay def lu dul calme parce que man xam naa sama soxna xam naa ki a takk koo xam ne dund ak dund nga ak moom 10 ans comme naan nga du question de nit mooy tax mooy wax loo xam ne tey jii nii day dugg say nopp dañoo jaar foo xam ni mënu ma ko sax nettali. moo tax non loolu loolu sa euh, ci ay savon ak yi ni baax na nga wax ñu lenn lu nga xamante ni jot nga moom non juste li may a respecté bon juste li may mën wax mooy nit ku baax la te dafa soxla ñu encouragé ko franchement parler te su ma sañoon na ko ñëpp encouragé parce que lii yombul lii yombul franchement parler jigéen décidé ne day liggéey comprendre nga parce que jamono ji liggéey liggéey liggéey am jigéen bu demee ba teg entreprise normalement dañ ko war a dañ ko a encouragé quoi franchement. mais mais jamono héritage doo ko doon euh, moom ñenn ñi wax te franchement te boobu noonu dama ko ko dama dama xam ne dafa juum moo tax euh, ma jéggal ko comprendre nga parce que li ma ko wax laa leen di waxaat man xam naa ki ma takk xam naa sama soxna bu hmm. baax comprendre nga du ma def lu dul di ko sant daal waaw bi nga déggee euh, tiituma parce que xam naa ni sénégalais Sénégal moo demee noonu comme comprendre nga hmm. boo defee lu ndaw euh, ampleur bi mooy mooy jóg à chaque fois mën nga def lu baax def euh, benn erreur bu ndaw erreur bi la ñuy gis à chaque fois xam naan nga moo tax euh, mooy loolu daal non du def anytime doonul defati anytime alors naka naka noonu dundee ci réseaux sociaux yi am na ñoo xam ne influenceur lañ di tudd sa tur di la wax lu nekk naan jëkkër ji moo ko bàyyi si mu nekkee non juste juste ba fajar la jëm waaye. loolu loolu nit ñi mënoo leen tere wax. yoo xamante ni naan nga moo tax leen di bàyyi ñuy wax li ma koy ñaan mooy góorgóorlu comprendre nga parce que am na ñu la bëgg am na ñu la bañ. maam Ndiaye nee na dafa kontaan tubaale kàlla macha allah si ñu la bëgg ngay xool pour mën a avancer quoi. maam Ndiaye nee na ndaxte moom fii la juddoo tey fii la yaroo. dafa am ñi wax ni maam Ndiaye dafa am feebaru xel loo leen di tontu. non gars yi dañuy wax rek nee na fii mu juddoo jéppi ñu ko benn yoon ndax bu ñu ko. gars yi dañuy wax rek kenn du génn ñëw ci bis dañuy wax rek. waaye nee na balaa dara xew du du créer entreprise quoi en fait. Uh-huh. nee na lii lépp bàjjanam moo ko waral. lan mooy kàddu yu mujj. yi mooy. nee euh, di sant ñëpp ñu fi teew. ndax nee na moo ko natt di sant bu baax di sant aussi tamit samay goro comprendre nga. nee na rëccul euh, ku ci mën a jàppale Mame Ndiaye. nee na ko jural batante comprendre nga. Euh, liggéeykat la. ak personnalité. man dama ko fekk ci liggéey. nee na da doon sëy sama kër. nee na à génn à chaque fois di liggéey dama ko daan fekk si marché maag moom ñu toog ba yenn heure yi jour veille korité wala veille tabaski day toog ba 5 heures du matin maag moom ma accompagner ko ba 5 heures du matin après nag dafay dem ci càll waaw ñi ko xamul nag ñoom ñooy nekk di wax. nee na ndax ndax lépp lépp lépp moom la jàll. nee na moo ko yar. alors ñu alors nga ko waxee léegi. si ay ree la nga jàpp la Sénégal yi jàppee ay ree lay Sénégal yi mu naan sama jëkkër intellectuel la mais dama nax mu takk ma mënu woon sax lire alors bu ñëwaat affaire non du question de sax parce que le problème avec euh, du question de intellectuel daal mais moom mooy wax noonu rek ah loolu Sénégal yi ba loolu dëgg la woon ah mais noonu la demee woon da daawoon na bon man loolu fàtte naa ko franchement yàgg na de. <laughs> mais siiw bu mu siiw. Ah? siiw siiw bu mu siiw maintenant léegi. ak lu mu yàq sëy bi wala. non yàqul dara si franchement parler parce que lépp lu ko war rek mu ngi koy def. saa yu liggéey ba wàcc mi ngi ñibbi këram. comprendre nga mi ngi may toppatoo man saa yu ma wàccee mi ngi may toppatoo mi ngi def euh, lépp lu ko war si sëy bi franchement mais mais maam dañ koy gis mu nekk ci live la daan ni mu safee la safee ci kër gi. ko jox lépp moom non maam Ndiaye moom le problème en est que. na waaye xam amaana liggéeyam mais. dans la vie courante maam Ndiaye boo ko gisee du wax du siggi xool nit. franchement parler du nu bàyyi nit te ñëw ci moom du xool nit franchement. nee na pàtte nit bu baax la. non du siggi xool nit. waaye bu jugee foofu. alors ñu wax si digganteem ak kii war a bis bi tey ah, muy sëñ Fallou dégg nañ sax si ay mbir. imaam sëñ Fallou koo feeñu. histoire boobu nu mu demee yow en ma que marine mu ngi dara. waaw xam nga boo juddoo ci famille murid comprendre nga nga juddu fekk say papa fekk say yaay nekk nekk ay murid da ngay ànd rek doon murid quoi comprendre nga. te aussi tamit moom digganteem sëñ ak sëñ Fallou dafa yàgg man mii xam naa si dara amaana ñu bëri xamuñu xamuñu ko comprendre nga parce que man ma nekk moom moom sëñ Fallou dafa ah, yàgg dafa yàgg te am na lu ci bëri loo xam ne xew na ci nit ñi ko te ñu yëg nañu ko macha allah. loolu yomb mais Mame Ndiaye loo koy woowee <laughs> moom Ndiaye Sow moom bébé ñu ngi lay jaajëfal. accord la. bon di ko sant rek comprendre nga di euh, sant euh, Serigne Fallou bu baax. comprendre nga di euh, aussi ah, ñaanal ñi teew yëpp. si bésu sëriñ sant sëriñ Fallou bi waaw parce que lii yombul nga woote ñëpp euh, wuyu si man nag damaa mun damaa mënewul wax moo tax <laughs> c'est la première fois ok allez merci